lépp yemb na ngir examen bi nga xam ne moom mooy BFM am ci ni mu waree fii ci senegal tey jii ci altine ji ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru sulet loolu nag muy ay assurance yoo xam ne ki ko wax mooy ministre bi nga xam ne moom la ñu gàll li nga xam ne mooy éducation nationale di Moustapha Mbamba yi mu ngi wooyi tamit candidat yi ngir ñu dëppoo ak li nga xam ne moom la ñu teg muy ay règlement yoo xam ne moom la ñu teg ngir ñu mën a def seen examen ni mu waree bokk na ci téléphone yi nga xam ne dañ koy tere ci centre d' yi. ren nag 191 362 candidats ñoom la ñu woo ngir ñu mën a def rek li nga xam ne mooy seen BFM muy marqué nag passage bi nga xam ne moom la ñu war a def jëm ci cycle secondaire. ñu tasaare leen ci 1155 centres mu nekk ab yokkute boo xam ne nemmeeku nañ ko ndax atum 2023 1135 centres rek moo amoon yokkute boobu nag. buñ ko xoolee muy ñaar fukki centre yoo xam ne dolleeku na li nga xam ne moo fi amoon 2023 jur yi tamit yokku na ndax 2023 1277 la woon ren dem na ba 1315 mu nekk ab yokkute boo xam ne fanweeri jur yi ak juróom-ñett